Diop daan nay li nga xam ne moo ko tax a jokk nee na ay motivation ak jaajëfal ak a décoré ak sargal ñi nga xam ne ay entrepreneur lañu moo xam ñu yëngatu ci wàllum politique moo xam grand décideur yi nga xam ne ñoo nekk ci déndu Afrique la wala ci biir diaspora bi loolee bokk na ci li nga xam ne tax na ñu taxawal li nga xam ne mooy corridor bi ndax Sénégal dafa am loo xam ne dañu ko baaxoo def dañuy bàyyi ba nit génn àdduna ñu doog koo jaajëfal doog koo sargal waaye nag ñun maanaam ci sa dund la ñu lay jëlee jaajëfal daan lay tatagal a kaay gi di réew mi édition bi ren jii la fukki fan ci weeru juillet atum 2021 premier lancement bi ma ngi nekkoon 2004 corridor nag moo nekk cérémonie bu njëkk ci wàllum distinction ci déndu Afrique ñu récompensé ñi nga xamante ni nag maanaam ay kàngam lañ ci biir réew mi ak ci bitim réew président Mbagnick Diop daan nay wax ci temps fort yi nga xam ne moo am ci corridor yi nga xam ne jot na ko organiser la ma jotoonto nee na temps fort yi bëri na loola waaye na corridor bi daan na koy ubbi la mboolem bunt yi nga xam ne ma ngi ci àdduna bi innovation yi nga xam ne danañu ko def ci justice bi nag loolee dina jéggi dayoo ndax corridor événement la boo xam ne bu exceptionnel la événement la boo xam ne jamono ji agenda continental la kenn du des ci grand décideurs yi nga xam ne ñoo nekk ci sous bi nee nag chaîne bi cent pour cent numérique lay doona moom président Mbaye Diop daan nay wax tamit ne MEDES ren jii la ñuy li nga xam ne mooy ñaar fukki atama yéen a kaay gi de la ñu koy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki démb bu autorisation ndax am na ci investissement boo xam ne toll na ci soixante milliards ci lu toll ci quarante hectares yéen kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samba nee na mbiri Karim Wade ak Khalifa Sall ñi nga xam ne ñoo nekk ci dialogue politique bi doon nañu ko lijjanti waaye du ñoom ñoo war a lijjanti loolu ndax Karim Wade Khalifa Sall lenn rek moo mën lijjanti seen mbir maanaam ñu am na séelé na te loolee dogal la buy jógee ci Macky Sall yéen kaay gi di direct ci ndakaaru ak ci biir réew mi yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak l'observateur ak las nee na Déthié Fall léegi nag dem na fekki front de résistance nationale yàq na musiba ak mbelengaan ki nga xam mooy Macky Sall nee njombe yeek tojaange yeek giraawaal yi nga xam ne moom lay def jamono ji dama cee tiit yéen a kaay gi la tribune nee na révision code électoral bi député yi convoqué nañ leen niki suba ci alxames ci assemblée nationale yéen a kaay gi xam ne moom la ko a kaay gi réew mi quotidien ni ki démb sa jam ñaajo njiitu réew di président Macky Sall daan ngir nag ñu respecté li nga xam ne mooy mesure barrière yi yéen a kaay gi de la témoin nee na nag jamono askan wi ñoo ngi riir wuti li nga xam ne mooy vaccin yi ndax vaccin yi ñu baree bari nangu wu ñu woon a ñekko waaye gis nañ ne benn semaine lu toll ci fanweer ak juróomi junni ci askan bi ñekku nañu yéen a kaay gi de la turbina xëy duñu xibaara na ñu tabaski gi nar naa metti loola loola lool ci ñenn ñi ndax li nga xam ne mooy xar yi xar yi cher ba jéggi dayu li nga xam ne mooy togg bi maanaam sos bi loole tamit kenn mënu koo laala yéenekaay gi di l'info xëy di ko dëggal nee na xar ak aliment de bétail bi lépp yokk te ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu yi jamono ji seen poste yi dafa fëq yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu ca diwaanu banque agricole foofee nag dafa am benn caissier boo xam ne dafa sàcc lu toll ci juróom ci ay millions yéenekaay gi di enquête nee na agresseurs yi nga xam ne ñoo nekk Grand Yoff jamono ji ñoo fay lëmbee sàcc gaa nga mel ni tulleeg màlle rey gaa nga mel ni tulleeg màlle askan wa nga xam ne ñoo fay yeewoo ji nelawutuñu ba yandoor